sa aslëf bii nga ju indaale lan la yéen seetaan élage bu neex élage bu neex ngeen di seetaan nii sa aslëf bii nga indi parce que dama koy mengalee bernde yee ca Masaalikul ja moo tax mu mu tuuti we sa lu ndaw lu tuuti li ngay togg nii lan la bu nga <laughs> fi mu ne nii ndax mën naa yeggali gàcce daf ma toog aslëf bi nga indi lan la bàyyi gàcce daf ma topp. yàlla baal na xaaral ma def nii rek bañ a sigi kiis la andi tey. teraanga du tuuti. wallaay tuuti. bu bëree ñu jël. waa gis nga bàyyi ker day. waa da ngeen trop ker day. yàlla loo ma may ma jël bu la yàlla mayee cinq mille nag fekk daam soxla cinquante mille laay dëgg la ay bàyyi ba waay ñaar laay dëgg la bàyyi ay milliers des milliers et des milliers et des milliards d'euros ah lu ñu am jël. yàlla baax na waaye nan yeggali rek baay. Eh, defal li yooyu laay wax yàlla. ah yàlla loolu may ma jël. donte sama wërsëg la. bu ba yooyu de ay cinq na bari rek. <laughs> allez donc euh, selu ndaw li lan la. waaw. waaw man tey nu may def ba togg. <laughs> waa baay. lu tuuti li. quiche euh, au feuille de brique la andi tey euh, comme ni nga ko gisee nag commencé woon nañu di euh, defar li nga xam ni mooy viande hachée bi nga xam ni mooy base bi ak feuille de brique yi nga xam ni soo demee ci grande surface yi di nga ko mën a am moom nag boo ko toggee dafay jox aspect croustillant togg bi. togg bi nga togg déjà nii commencé woon nañu defar li nga xam ni mooy viande hachée bi déjà dañu jël beurre tuuti beurre. def oignon ak tomate jiital ko bàyyi ko nag ba mu commencé ñor ñu doog ciy li nga xam ne mooy viande hachée bi gis nga nag ñu am euh, couleur bi ak aspect bi déjà dafay am goût euh, te defaguñ ci li nga xam ni mooy euh, marinade bi def naa ci un peu de sel un peu de poivre bàyyi noonu mu mu mu ànd ak euh, viande bi comme ça ndawal bi du fàdd dafay dafay gën a am goût ci biir déjà fii nag euh, ñu am benn marinade by Sophie boo xam ne moom laa andi tey gis nga nag euh, marinade bi nag c'est simple dañu jël persil coriandre herbe de province ak tuuti temps ak nana sos moom la ñu jël ak ay mélangé ko ak tuuti sauce soja moom la ñu mélangé nii nag ba am benn appareil boo xam ne gis nga ni da lay faciliter sa li nga xam ni mooy togg bi déjà da ngay ñëw rek jël rek def ci mu jox la li nga xam ni moom nga soxla déjà boo ko ci defee rek da ngay mélanger du jar nga nekk fii di dëbb wala di kii yooyu euh, mais nag euh, duñ ci def euh, poivre tuuti rek kii lañ ciy def mooy sauce kii bi piment vert bi moom lañ koy mixé waale nga xam ni dafay jox li nga xam ni mooy sauce bi goût déjà bu ñu defee nii nag ba pare damay rek ñëw jël maïs doux bi daal di ko ci sotti voilà gis nga rek ñu def maïs du déjà nii da ngay am oignon euh, tomate bi nga ko toggaale ak viande hachée bi ak tuuti mais doux maïs doux bi nag bu la neexee mën nga ko remplacer ak ay champignons de Paris ça dépend yow ci goût bi nga bëgg mën nga ko remplacer aussi ay poivron couleur vert jaune rouge bi nga daggate ko moom tamit ba mu sew ba am ay petit dés nga daal di ko ciy def nga xam ne boo koy lekk danga koy sentirale déjà ni automatiquement soo defee mais bi rek da fay li nga xam ne mooy gaz bi fekk nag euh, préchauffé woon nga sa four de l'autre côté suñu paree nag euh, damay rek euh, ñëw jël benn moule boo xam ne mooy dem au four la plupart du temps nag soo déggee ñu nekk si rek sa xel day dem ci nen wala mu dem ci meew mais ñun tey dañu ko def sans pour autant mu am nen mu am meew juste feuille de brique yi ak viande hachée bi nga xam ni togg nañu ko à côté gis nga feuille de brique yi nag pour nga dindi ko du am benn problème gis nga nii nga koy jëndee da ngay ñëw rek daal di détaché benn bi soo nga daal di koy teg ci nga xam ne mooy euh, moule bi dem au four benn bi nag euh, la ñuy jiital mën nañu def nii gis nga nag moom bu nekkee à l'air libre rek da ngay gis ni day commencé rebord yi di wow moo tax de préférence bala nga koy utiliser da nga koy bàyyi nag euh, au frais ba moment bi nga xam ne nga ko soxla nga soog koy génne mais boo ko exposé nii rek dafay wow te su woowee bu fekkee da nga ko bëgg nag def li nga xam ne mooy ay bâtonnet wala genre yooyu dafay. dafay craquer day bàyyi ci saa si voilà gis nga ni rek euh, ñu sotti benn partie bi mën nañu rajouter waat ba lépp fermé wu bu baax bu ñu sottee nag euh, benn partie bi ba pare dañuy ñëw rek daal di ciy def gruyère gis nga nag euh, bu ñu defee gruyère ba pare dañuy ñëw jël ci marinade bi tam légèrement daal di ko ciy sànni voilà suñu defee nii nag ba pare dañuy ñëwaat jëlaat benn feuille de brie voilà gis nga nii rek moom tamit ñu tegaat ko nii dañu koy mel na ku koy superposer jël la viande hachée daal di yoon nag lépp la ñu ciy sotti suñu paree nag ñu jël beneen daal di koy couvrir carrément gis nga nii rek ñu taale ko ci. ñu ñëwaat rek jëlaat ci fromage bi daal ko ci saupoudré jëlaat tamit tuuti marinade bi daal di ciy defaat légèrement rek ñu daal di ñëwaat rek jëlaat benn feuille de brie voilà nii rek moom it daal ko ci teg fermer ko ci carrément. voilà gis nga nag bu ñu defee nii ba pare rek dañuy ñëw jël li nga xam ni mooy fromage bi des daal di koy sot ci kawam pour ñu am benn aspect croustillant ak benn finition bu bu rafet parce que togg boo gis rek touche finale bi def ci am solo parce que pour dressage beeg yooyu noonu dala ciy jàppale gis nga nii rek ñu def ci fromage bi su ñu paree nag am nañu fi ay tomate cerise yoo xam ni moom it dañu ko dagg en moom rek laay ñëw daal di jël rek teg ko nii ci roboor yi mu daal di wër li nga xam ni mooy suñu au four soo amul nag euh, moule bi mën nga ko def directement ci plaque bi nga xam ne moo jëm au daal di jël benn tomate daal di koy teg ci digg bi gis nga nii nag euh, suñu defee nii ba pare nag fekk préchauffé woon nga sa four à 180 degré da ngay ñëw rek jël euh, plaque bi nga xam ni euh, jël moule bi nga xam ne ci nga def li nga xam ni mooy quiche bi daal di koy def ci four bi bàyyi ko nag di à 15 minutes fekk mu ñor parce que déjà nii viande hachée bi sauté nañu ko ba pare tomate beeg maïs bi ak tout ce qui va avec juste rek pour mu am aspect croustillant bi moo tax ñu koy def ci four bi ba cher damay jël rek nank rek daal di dugal puis bien. voilà gis ngeen nii rek. voilà gis ngeen nag boo. four bi mhm. xam nga la plupart du temps four bi dafa am fuy ñoral ci kaw ak fuy ñoral ci suuf mhm. da ngay commencer fii ñoral ci kaw ba mu am euh, ay cinq minutes nga daal di changer position bi bu ko defee euh, ci suuf dafay ñor ci kaw tamit am couleur bu rafet boo xamante ne nii du cramer benn yoon parce que soo defee les deux ci kaw dafay lakk te ci suuf bàyyi cheikh bi jaajëf la fa li ngay defee nii <laughs> lu waay mënul neexulaa nit ki looy def na ko mën ci kaw day cramer waaw ci suuf tooy waaw am na noo ko expliquer noonu c'est tellement professionnel fii yaa fi ne merci beaucoup. voilà.